با اقف جنب jam taru life lum tax nga braay sa gon gëmal li nga doon sural say non xol ci say doom fexe dundee sa ñak ñàkk bum la ñànkiloo ëllëg di nga dooni mak gëm gëm ba àgg fa ñu jëm gëm gëm tax ñu soppi sunu life japp bañ a bàyyi gëm ni bëss dina baaxi gëm li ñu gëm top yoon bi di dem gëm gëm tax tay ñu alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association ànd taxawu ñu wéré di TV Baye Pape Niang dellu siwaat di leen nuyu fañ leen daan nuyoo muy ci mbégte ak xol sedd di leen nuyu ci jàmm di leen nuyu ci suutura di leen nuyu ci xéewal yu yaatu di leen nuyu di leen ñaanal sunu borom defal leen mboolem li nga xamante ni moom ngeen bëgg te bañ leen a topp ci li leen neex lépp lu jaamu yàlla bëgg ta mu gën ci moom yàlla na ko ko yàlla suñu borom defal. ñu bari dañ naan ma sëñ Pape yow loo ñaan yàlla def ko kon ñaanal ñu moo tax may ñaan balaa may ubbeeti benn vidéo dama cey jiital mooy ñaanal Sénégal ñaanal sénégalais yi ñaanal àdduna wërngal këpp képp koo xamante ne rek am nga ay mbir ak i jafe-jafe wala nga nekk bitim réew liggéeyoo wala nga nekk ci ay tolof-tolof yal na la ko yàlla teggil ci barkeb liggéey bu sell bi nga xamante ne ñu ngi koy def te di ko def te yàlla rek tax di ko def a cœur ouvert kon ñu ngi leen di nuyu fañ leen daan nuyoo tey ñu nuyoo leen fii ci diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fii nga xamante ni fi lañ tegoon ab liggéey bu rëy ci loxo ki nga xamante ni mooy Baye Sëwru ñu gën ko xam ci Mansour Niang wax dëgg yàlla àndoon fekk sama doom Baye Fadel Niang bu dakaar ba social waaye mu nekk ci ay xat-xat noonu la ñuy bëggee ki nga xamante ni moo di DG am ak képp koo xamante ni mu ngi foofu noonu ci biir Dakar Buzz International. fii ñu ñëw ci diwaanu Thiès ñëw démb andi li nga xamante ni moom moo di bagage yu ki nga xamante ni moom moo di Mariama Badji soxna Mariama Badji ñu dellu delluwaatal leen ci ginnaaw tuuti moom mi nga xamante ni dëkk na ci bâtiment abandonné lu ëpp fukki at ak juróom-ñaar moom ak njabootam amuñu benn sécurité nekk ci ay tolof-tolof yu doy waar ñàkk ba tumuranke ñu tuddee leen lu nekk dem nañ ba tuddee leen tur yoo xamante ni sax da ngay xam ne ñii leen tuddee tur yi na ñàkk rek moom moo ko waral. boobaa ñu mën cee collecté loo xamante ni dinañ ko mën a dundee suturaale ko seen njaboot ma ni waa assistance sociale AATGW kenn du yéen taxawu ngeen maman Mariama Badji ba egg ci li nga xamante ne ni mooy jébbal koy caabi këram waaye dama ni wax ji bu baree ñun la waaye bu jëf ji sellee yéen ami internet yi la yéen defkatu lu baax yi yéen jaamukatu yàlla yi ñaata kër ngeen tabax tabax ngeen fële ca diwaanu Louga kër maman Pauline Ndiaye pareewu leen foofu ñëw fii tabax fi kër maman Mariama baaji ñu dem fële diwaanu diwaanu yoor taba fa kër ki nga xamante ne mooy Baye Abdou Sarr waaye kër ga àggagul waaye bëgg nañoo ànd ak yéen àggale kër ab Baye Abdou Sarr te jëm yàlla rek tax ànd taxawu ñu wéré di TV c'est la solution des personnes diminuées nañ leen àgg ci kër gi xool kaamil bi ñuy wàcce ngir kër kat boo koy sanc war ngaa jiital al alquranul karim war nga faa saxal lépp loo xamante ne day dàq seytaane mu suba ndax fii dey xam naa ni ki nga xamante ne mooy borom këru Mariama Badji dégg naa ci ay kaddu nee nañ moom lañ fiy tabb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 إن الذين كفروا سواء عليهم ويريد كل رسول فضلا فضله إن تولوا فان خاف عليكم عذابا يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير على إنه يثنون صدورهم ليستخلفهم منهم حين يستخفون ثيابهم يعلمون ما يسرون وما يعلنون منه إنه لا يموت الكفور وإن أسقناهم ليقولن عسهابا سيئة عني إنه لعلهم يتقون وإما نخافن منهم قوم خيانة ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقرم وضربتم لكم دوائر من عليهم دائرة والله والله سميع ولا سميع عليم من أحراب من الله ويوم الآخر ويوم الآخر ويتخذ من ينفقهم قربات إنهم من الله وصلوات ورسوله ألا إنه قربة لهم سيدخل الله في رحمته إن الله قبر رحيم وسابقون الاول من ولا مهجر ولا ولا الأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فضل عظيم وممن حولكم من الأحراب منافقون ومن أهل المدينة مدينة مرد علينا في نتكلم عن عن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون يحترمون أيوة، ذنوب خالف خلت أعمالا صالحا وآخر سيئة من كان يظن أسأل الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وسال عليهم أن سكن سكن سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو ألم يعلم أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويقول صدقة وأن الله هو التواب الرحيم قل يعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن وسكر وستردون إلى عالم الخير والسعادة بكم ما كنتم تحملون وآخر يوم لأمر الله إنما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم العاقل الذين الذين اتخذوا مجرا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن من عرب الله ورسوله من قبل ولا يعرفون إنا أردنا عذر والله سيسعدون إنهم لكاذبون تقلبون فيه أبدا ممدود liñ ci yéene nag mooy kër gi ñu doon samp di ko sanc tey yàlla def fi jàmm def fi def fi tawfiq incha allah ku ci nekk dangay jàng fatiha ñett lixlaas koo mooy qul huwa allahu ahad naa si ñu jàngee ko kaamil bi mbooleem loo xam ni rek def nañ ko ci ay rëcc-rëcc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 أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. te de moom la yàlla jiital ci liggéey bii mu woote ko muy Baye Pape Niang mu jiitu ci wax dëgg yàlla nekk loo xamante ne nii ñun xam nañu coono bi mu ciy daj guddeem ba ca gëm xamul naaju tàng xamul ker gu sedd lenn rek mooy yitteem mooy jaam ñi nga xamante ne yàlla teg na leen coono muy seet nu mu def ba yàlla teggi leen coono boobu. ànd ceeg équipe bu du AATCW social tey li nga xamante ne moom lañ fi ñëw def si ko fi muy jël kayitu jël kër di ko jox sunu yaay Mariama Badji mu teg ko ci jàmbaar ji nga xamante ne man damay wax ne chaque jour bu ñu àndee ci terrain bi damay gën a fullawu ci li may def damay gën a am pas-pas muy bàyyi sawru faal ndax wax dëgg yàlla dippi liggéey bi tege ci loxoom yaa Mariama Badji du ma bàyyi ma fen bàyyi sawru yendalul fanaanalul ba muy waaj jot kayit gi rek ñoom ñaar ñi dañ den ci coono chaque jour ñu dawal oto Baye Sawru ñëw Thiès fu dañu dem fa di lijjanti ba kayit gi pare tey Baye Sawru di def ay jéego ànd koog bonne volonté yi nga xamante ne ñu ngi seetaan ah, ah, ñu ngi seetaan taxaw ñu di TV ñu jàppale ko ñi def seen dërëm ñi def seen ñaar dërëm ku nekk def la la yàlla wër sa ba tey kër yi ah, Mariama Badji rasé ba nu mën a yëkkati ay caabi jox ko mu dugg fi loolu mbégte lay doon ñu ciy gërëm Baye Sawru ci liggéey bi donte waruñu koo gërëm ndax defaluñu yàlla rek lay defal di jaajëfalit mboolem bonne volonté boo xam mas ngaa yëkkati sa ñaar dërëm dugal ko ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñoo ngi lay jaajëfal ndax am na ko ko mante te defu ko kon ku ko mante def ko rek war nañ laa wax jaajëf donte jëf ji àndut ak wàcc ndax ñun jëfaloonu yàlla ngay jëfal ah di am mbégteet bu baax a baax ci ñi nga xamante ne ñooy ànd ak moom boobu ba léegi ci liggéey bi bàyyiwunu chaque jour bu jógee ñu jóg heure bu ne da leen koy yee ñu ànd ak moom ci liggéey bi ñoom it ñu leen di jaajëfal bu baax a baax lii ñuy jëf yàlla buñ ci gis seen bopp yàlla nañ ci gis yàlla mi tax ñu koy jëf yàlla na leen ci suñu borom fay fayu ëllëg te bala ñoo jóge fii suñu borom wan leen ne li ngeen doon liggéey nangu naa ko ndax loolu xol bu sedd lay doon ci ñun euh, man bu ma toogee fii rek damay am fierté bu baree bari li tax mooy euh, dañ ko fee defoon jamono yële yaakaar naa deux mille dix wala deux mille vingt ku ñuy wax maire Pauline Ndiaye ca Louga lu mel nii daloon ko moom nattu bi gënoon a metti ci moom ndax da boole ñeenti doomam yu góor ànduñu ak seeni xel Baye Pape di ko jàppale ba mu am kër mu tabax ko yëkkati caabi kër ya jox ko keroog laa taxaw ma ne ko lii ngay liggéey de li lay xamal ne dëgg la mooy lu war a mat ay junniy kër a ngi leen di xaar te yéen a ko war a tabax. kon kër gi bu ñëwaatee sama wax ja yàlla dégg na ko te yàlla na ko gën a dégg yàlla nañu dem ba association bi képp ku amutoon kër te doon ko yàlla jaarale ko ci seen loxo ñu fexe ba nga am ko ndax ñoom de bu ñu ko defee ba pare dañ koy fàtte duñ toog fenn di ko waxtaanee duñu wër di ko waxtaanee kon association la boo xamante ne nii ñu jar a jàppale lan mbooleem koo xamante ni borom doole ga te li leen dégg xamal ne du politicien moo leen di bu max kenn santu leen ko du kilifa ak diine moo leen ko sant kenn santu leen ko xalaat la bu wàcc ci Baye Pape Niang mooy nanu liggéeyal yàlla ci jaamam ñi nanu ànd xool ñi nga xamante ne ñun ñoo leen tane ñu fexe ñoom ñu yëg seet bopp ni ci société bi lan bokk nanu fexe ñi nga xamante ne tey bëgg nañoo tëdd waaye chaque jour ñi ngay xalaat ne ay bu nawet bi commencé ñun fu nu jëm nañ fexe ba ñooñu bu nawet bi ñëwatee nan koy yëgee comme ni ko nit ñi di yëgee yeewu rek gis ne bàq bi tooy na loolu nag tey lii firnde la ci ñuy ñaan kër yi doon ay këri këri këri kër yoo xamante ne at mu jot ngeen immigré ñaar wala ñett jox ko ay jaam yàlla ndax loolu rek leen fi bàyyi ndax ni mu ko waxee léegi ñun ñii di ànd ñëpp ñu ci ëpp bokk du ma wax ñëpp waaye ñu ci ëpp seen kër bàyyi lañ dëkk ba pare li jël ay kër di ko jébbal ay doomu aadama te yàlla rek tax waxuma la sax kër waaye dañuy fekk sax koo xam dafa luye am problème mu luyaas ñu tabax néeg ne ko kaay dëkk fii kon ñoo ñu di def loolu te seedeluñ ko ku dul yàlla ñoo ngi leen di ñaanal seen ànd bi seen liggéey bii yàlla gën leen a dëgëral gën leen a kàttanal nëbb leen seen bopp ci liggéey bi wan leen ci boppam ba du ngeen ci taayal lu ngeen ci def xam ne yàlla rek ngeen ko defal fayug yamal xiyam rek ngeen ci wut yàlla na ko yàlla commencé fii ci àdduna oustaz jëf ju rafet jooju nga dégg tey waa ànd taxaw ñi di di ko def assistance sociale atse AATCW sociale di ko def njiit la di bàyyi Pape ñaa tey boo amee kàddu yoo leen di soññ ak loo leen di dénk ak jëf ji ñu jëf lan la ci yàlla fay lan la ci yàlla wax ci fayu ëllëg. salaamaaleykum wa rahmatullahi ok ñu ngi di leen ziar bu baax tabaarakallaahu kàddu yi rafet la ñooñu nag moom liñ leen di dénk leen la rek. mooy gën a góor te xam ne ñoom ñu ngi ca yoon wax tabaarakallaahu xam loo xam ne yàlla du ko neenal rawatina def ngay def goo xamante ne sa loxo ndeyjoor ba mu koy def yow bëggoo sa loxo càmmoo njëg ko te jamono ji nit ñi ñu ngi jaamu yàlla di ñaan yàlla te yàlla mayetu leen comme li Ibrahim ibnu Adham waxoon dafa am ku ni ko ni ko yaa aba isxaqa yàlla dafa wax ci alquran ni ni uduuni astajib lakum dafa ñaan leen ma ma may leen mu ni ko waaye wa naxnu ñun nadu llaha ñu ngi ñaan yàlla waaye yàlla nanguluñu ibrahim adham ni leen لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء نخسن خل دفا دي تي فوكي مير مولي كون نكا لين يالا دي نانغولي مولين باسكو سين خول دفا دي تي فوكي مير بوتي نيك مونيكو عرفتم الله ولم تؤدوا حقه خم غين يالا وايي جوخولين كو حقام خم غين xam ngeen ni moom moo leen di teral ndax nit lum fi am yàlla ko jox xëy na nag yàlla du wàcc ba ci yow ñi la nangam waaye lu mu la jox lu ne nga téye ko xamal ne dafa am ñoo ko bokkal waaw daf laa jox nga tane kii loolu du pour yow dong mais ka nga tane danga ko war a dimbali. wa alhamdulilah dëkk bi moom tabaarakallaahu ñay baax ñoom ña ngay baax ba tey. متكش وقرأتم القرآن ولم تعملوا به ينغي جانغ القرآن واي جفو لين لنك القرآن جفو لينكو داخ مبولم لون في جفنا يالا وخنا لب تلي مدفن كي كو دف يالا داكوي فاي في داكوي فاي فلي دونتالي موم نك فيسخ مو غنن داخ يالا موني من جاء بالحسنات falahu ashru amthaliha waaye wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha waaw yàlla nee na képp ku ma lebal benn dinaa la fay fukk yu mel noonu kon wax ji du gudd ñi nga xamante ñoom ñoo jëf-jëf ji def nañ ko fiñ ko war a def yàlla na leen yàlla fay ngeen gi fay incha allahu taala te yàlla dina ko def yéen nit ñi nga xamante ni yéen a yéen a yéen a yor wàllum kii di di di Euh, association ànd taxawu ñu wéradi seen liggéey rafet na dugg see maa ngi xool maa ngi naan sang bi ko kii de xàmmee naa ko mommage xàmmee naa ko ndax may seetaan ki yenn saa yi ma gis si tabaarakallaahu am na yoo xam ne daal ndimbalu yàlla la mooy tax nga def ko parce que yenn saa yi ngeen daje ceeg yoo xamante ne boo xam maa ngi seetaan gis ngay jooy tabaarakallaahu daal mission la boo xam ne da ngay di nangu ni yàlla moo leen ko dénk nekk leen ca ida kunta fi amrin فكون فيه والا فاتركه بو نيكي تي مبي تخاوني تي لي لاي نه مون داغ سي نه خان مونو سي نه نغا باكو واي تبارك الله ني نين سي نيكي خامني يالا تبارك الله موم موم موتي موم موتي جاب بو با أه، سوني ياي نيغا خامني نك موم بوغول كو تود تورم كو خام تخاونا سي لول بوغول كو تود مومي دنج كوي نيالال يالا يالا باركيل كو لي مو بوغ موكو خام موم نينا فايك يوم القيامه رك لي وور dafal leen tawfiq dafal leen taysir incha allahu am nañ ci yaqin bu wér kër gi yàlla yàlla def fi jàmm mu jur yeneeni kër yàlla mën ko mën na ko yàlla na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gëm gëm gëm gëm gëm gëm gëm gëm nañu ànd ak ngëm nañu ànd ak ngëm ngëm ngëm ngëm ba àgg fa ñu jëm jëm tar taru life bu tax nga braay sa goon gëmal nga doon sóoral say non xol ci say dom, fexe dundee sa nyak ñàkk bum la kilo ëllëg di nga dooni mag gëm gëm ba aga fanyu jam jëm gëm tak nyu ñu soppi sunu life jàpp bañ a bàyyi gëm ni bés dina baaxi gëm li ñu gëm topp yoon bi di dem gem gem tax tay ñu yaa tay kër Mariama baaji wara joxe tiabi lo yek ya. waaw santaat rek xol bu fexe fexe fexe fexe xol bu fexe fexe fexe fexe wallahi na ci xol bu sedd lol ndax liggey bu mag bu toll kuñ ko tink dëgg yàlla ñu rëccu lu ñu weesu at na nandal li ñu weesu dañoo jàngalaat jàngalaat la la dunia xalaat la xam sa waay li la nit ku ni ngay dundee sa biir bopp laay jàngalaat na jàngalaat na dunyaa xalaat la nit ku ni ngay dundee sa biir dund yow ngëm tax moo jubale makatu kola baan takkal defal ñaan ci sanc bi waaw bismillaahi kon tabaarakallah ñu jàng ñu ñu ñu jàng fatiha rek salaatul fatihi yaa latiifu juróom-ñeent yoon ñu ko salaatul fatihi naatal naatal sanc bi incha allahu taala yàlla doon fatxu ci moom ak mboolem njabootam ñaanal mboolem ñi ci jàpp ñëpp yàlla na yàlla barkeel leen barkeel seen liggéey taxaw ci incha allah fatiha salaat fatiha juróom-ñeent yaa latifu ñu tëjee ko salaat fatiha واغفر لنا كل الذنوب يا رب وسر العيوب ويا مقلب القلوب قلب إليك خلدي رزقا حلالا واسعا علما غزيرا نافعا قلبا تقيا خاشعا فهب لنا يا صمدي عافية حسن الختام مني لنا كل مرام موتا كريما يا سلام على الطريق الأحمدي والدينا الراحمين مع الشيوخ أجمعين كذا جميع المسلمين وكل ذي توددي أجب دعاء المستكين بخير خلقك الأمين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 ndax jafe-jafe bi ñu nekkoon ñu nekk yàlla dong ñoo ko xam depuis 2008 ñu ngi ci kër boobu du ndox du courant du dara suñu mbokk yëpp fekk nañu ba man de sama mbokk yi de dama ñëw def ba mujjee bi dañu ma abandonné ndax kër bu ma nekkoon. tartaru life bu mu tax nga braay sa goon gëmal li nga doon suural say noon xol ci say doom fexe dundee sa ñàkk ñàkk bum la ñànkiloo ëllëg di nga dooni mag gëm gëm ba àgg fa ñu jëm gëm gëm tax ñu soppi sunu life jàpp bañ a bàyyi gëm nii bés dina baaxi gëm li ñu gëm topp yoon bi di dem gëm gëm tax tey ñuy parce que wax bu dee wax ba toog ci kër yi rek dem na ba mu daa ma ne man dañu de wuti location ma ne ko location boo xam ne amul lu muy lekk nga ne da wuti location mu ne damay liggéey ma ne ko jamono bi même boo demee liggéey doo mën a fay ñu lay fay boo ci bëggee dund boo ko liggéey te say doom yi ndaw yi coono lay topp nañu muñ ci kër gi day jàkk ne day jeex yàlla mooy defar nit waaye nit mënut a defar kenn waaw waaw waaw ma ne ko dem ah seetal bu la doyee rek demal liggéey waaye nag kër gi nag duñu génn dañuy toog dem liggéey loo fa am ñu dundee ko waaye du location de ku nekk ci kër yi boo xamante depuis 2008 nga ne fa ne fa ba 2021 bi ngay taxaw nga julli sax doo ko toog naa juróomi at yoo xam ne du ma am taxawee du mande bansa bolbo sambo ke de nyoma jala wa ude man samba ko kre kre kre na lañu tok li lay wax lu nga bayil fi kër ji nga dem wélégé di nga bëgg delu ci kër ji mu tel kenn dula la jàppale seen kër mu ngi ni am na ñoo xam mu ñu ma dekk ci kër ji man ak sama njabot wa def ñu ko wax dong lañ ci am ko duñu bu ñu betei mari awak cuba pemnyuat menma a mana dapat dari majo bele di mulut telefon dia ai kuda lebahan lagi di boni mana ha menma mana mana pad lagi kalau kalat dia dah berani wah a mana man di man belodoi Pak ini neemal nañ ñu wax ma dafa ne kenn rek waaw ah, man tam neew ko ndax moo nga leen wala la ma ne kenn rek day ngeen ñëw fekku ñu ci kër bi waaw ah. mais yàlla def ngeen ñëw fekku ñu ñuy waaja tabas tabaski ngeen fekku ñu ci kër gi li ngeen ñëwee sax dama ne ne yéen da ngeen fekk kër gi baax ndax kër boo xam ne boo fa ci bunt bi salaaxet bi di la àcc ji ndox bu nekk ci biir benn néeg yéen gis ngeen ko benn néeg kese moo nekkoon ci kaw ñun mu wax ma ne ko Maria mu ne ma ne ko fii nu ma dañu muñ moo ëpp nañ gën a muñ rek kon tey bu ñu yàlla dogalee ba ñuy dem ba dem ba dem ba dem ba yegg si fii tey ngeen génn ñu kër boobu yóbbu ñu ci colocation ñaar weer ñetti weer ngeen génn ñu indi ñu ko fii ah ñun de amuñu ñu lu ñu def waaye du la wax yow Mansour sama wax ju ma benn la ah, man de dama damay ñaan rek bu ñu dengki ñaagal ñun dañuy dénk suñu bopp ñun dañuy dénk suñu bopp ginnaaw yàlla yow ak sa équipe bi ak ndaw si gasama koy fondement bi bi mooy fondement bi. waaw waaw bi ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm yow ku toog nii ak sa équipe bi waaw ñun amuñu seen pay yàlla rek moo di pay. képp koo xamante ne dugal nga sa loxo si suñu jafe-jafe bi képp koo xamante ne dugal nga sa loxo si suñu si kër ji ba mu taxaw tey ji ba lu mu taxawee ni ñu dëkk ci yàlla yàlla taxaw la yàlla yàlla sàmm la sàmm say jaboot te lépp loo xamante ne def nga ko ngir yàlla tax yàlla rek moo lay fay waaw yaa xam dërëm nga ci dugal yaa xam kaddu bu rafet ngay wax yàlla yàlla fay la ñu ne duñu ñaanal duñu buñu kenn ñaanal ñu ne dañuy dénk suñu bopp waaw dénk nañu suñu bopp ginnaaw yàlla yéen seen équipe ak ndaw see ndax kooku ah yombul de jamono bii amoon na de waaye jamono bii bu yëkkati suuf ne la may am may naa la ay nit taxaw tabax la te dërëm dugul ñi ñëw kaare oto bi ñu ne demal nga dëkk laaj ñu la dërëm jamono bi ah nee ma amul de waay yombut waaw ah, ndax suuf mooy mooy mooy mooy mooy mooy fu tey ji xool yi waaw nag ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi dégg di gën yàlla di sant yàlla baax a baax a baax waaw kon nag ñun ak fi njaboot. alhamdulilah Baye Ibrahima Niang di jaajëfal mbokki amee internet bu taxaw ñu wéré di TV dégg ngeen sunu baay ni mu ko waxee wax dëgg yàlla mu nekk lu doy waar waaye nag nañ jël lépp li ci doy waar def ko mu doon sunu waar bu ñu amee waar rek. dañuy mën a liggéey te jëmm yàlla tax laaj bi nga xamante ni moom laa koy boole moom ak maman Mariama Badji mooy yan bis mooy bis yi nga xamante ni dootuñu ko fàtte ci kaw suuf ñu dund ko dund bu metti ci bërëb boobu noonu ban bis la woon papa ban guddi ngeen dund ci kër googu noonu mu doon dund gu tar goo xamante ni dootu leen ko fàtte illaa yow mi diin guddi googu gan guddi la guddi bi guddi boobu boobu mooy 2008 boobu fàtte naa sa date bi dem naa ba ma bind sa date bi ci miir bi la sa laa ko bind ina ko péew taw bi booba la ma dañu fekkoon ci kër ji kër boobu moom ak kër boobu sax bu jigéenu sax benn la presque bés boobu laa jëli sama waa kër yi Dakaaru booba sama yaay moo sama yaay bu dong moo nekkoon ci kër yi ma jubalo sama yaay gaañu ma jëli leen keroog bu ñu yegg si deux heures la taw bi wàcc ma ne Mariama mu ne ma ko jëmu ma la sax ma la di di ñëw dem ci beneen salle ñu commencé ne la ma ne ko Mariama ma ne ko jógul ma la la ma ne ndox baa ngi dañu fi yàqu ngeen bàyyi ma fii allahu akbar allahu akbar ndeysaan wax dëgg yàlla sant yàlla santé bon volonté yëpp ñi nga xamante ne ñoo teg loxo Baye Sowru ba tey jii mbébétam mooy dugal maman Mariama Badji ci kër tey mu dugal ko ci kër aménagé ko tal lamp yi indi ndox indi saret ngir muccal leen ci mbooleem tartar ak tiis-tiis yoo xamante ni ñu ngi ko doon dund dégg ngeen sunu bàyyi mënatul wax lépp ci néeg bi dem nañ kenn ku te kenn ku nekk ngi taf ay bëtam tey tuur ay xéewalam mu leer la ni metti na 2008 ba 2022 at yu bari la nga dëkk ko ci bâtiment abandonné jaan yi di ñëw ngay rey bu nawet bi jotee ndox mi daq la nga ànd ak sa njaboot ci kaw booy dem bitig ba bàyyi sa njaboot ci kaw xuus ñu ndox mi dem utali lu ñu lekk ba noppi dëkkandoo yi kenn ku ci nekk tuddee leen lu ko neex dégg ngeen ko sànq ci biir kàddu yi nee na lu nekk dégg naa ko lu nekk dégg naa ko balaa suma bàyyi di dal ñu dem ci mama Mariama mama Mariama yan guddi. pap maanaam moom xëj na guddi googu moo gën a metti waaye yaakaar naa ne guddi yëpp a metti foofu foo ko natt ci metti rek romb na fa ndax guddi googu muy wax noonu daanaka sunu genn wàll bagage yëpp ci la des ci lañ nag commencé nag xam ne nag coono dikk na waaye nag coono bu dikkee yàlla dafa ne bu mettee sant ma te mu gaaw koo teggi bu neexee yit nga sant ma. tey nan nga ko gisee sunu baay di wax ci guddi yooyu noonu bay tuur ay xéewal nga jàpp ni lan la yëg. waa xolom moo fees ndax xëj na tamit nit li nga toll jamono yoo xam ne kula newon jamono yoy di nga ci dem ci yenen jamono ndax yalla mo mën lu ne ndax am ak ñak ño ant so amé ah na nga sóoraale ñak a ci yoon so ñaké na nga sóoraale am nga ci yoon xëj na xolam dafa fess xam nga tamit nga ñak giso mbokk bu la taxaw ñu lay wax yenn kaddu yi sa njabot ñu leen fi xam nga dafa neexul ci xol dara day xew sax da ngay gis sunu mbo ñoom ay mbokkam dañuy jóge Casamance ñëw ba fii danga gis ku ñu romb dem seeti kër ka nekk Pikine romb ñu fii Kër Massar dem ba foofu parce que lan fa ñu nekk baaxul dañ koy wax carrément diw de jariñu di ko seet ndax ci ñax mi la dëkk ak ndox mi ñun ñii dañ ñu daan wax ne du ne la ñuy dégg waaye nag dama daan boole la ma neex ak la ma naqari gas ba mu xóot suul ko xam ne nag ku muñ day dee rek mbaa mu jeex wala yàlla boole ñi la ko teggiram mu jeex. dégg ngeen ko muy message bu am solo nee na ku muñ muñ mbaa bàmmeel mujj la mbaa yàlla boole la ak ñu ko teggi mu mel ni yàlla boole nag ak ami internet yi yàlla boole nag ak bonne volonté yi yàlla boole nag ak maman day Bousso mi nga xamante ni keroog su amoon fu mu ko dugal dootu ko bàyyi ci bâtiment abandonné ba waaye mu boole fa Fadel Niang bu dakaar ba social indil ko dund bu doy mu nit ku gore bañ ko joxee meew yu bari daa yëkkati potu meew ni ñu sëñ pap jël leen maa leen ko jox ngi sonn ci ñun waaye biir nañu ni sax yéen ñiy sonn ci ñun yéen ñu sonn mu nit ku gore nek nit ku doylu nek nit ku ragal yàlla nekk nit koo xamante ni royukaay a ngi nii royukaay a ngi nii dégg ngeen kàddu yi tey doon gu Mariama Baaji ak borom këram fanan ko ci bir nek teud ci kaw lal ti sen armoire tim len sen coiffeuse nek ci wet gi nga tal lampe lampe tak nga xol keur gi njabot gi yep nek ci nek bo xamanteni amna lampe ñom ñep ñu aménager len tay guddi gu lan la la def maman Mariam Kontan mbekté foko na nat romb na ndax mbekté kontan na trop may ñaan yalla kontante bi nga xam ne Baye Sewru def nako ak équipe am yal mu doon suñu njiglaay ñun ñep ñu di kontan, ñu yag di teug ay la combat ñu di ko daan ndax nit boy def dara rek ñu ne jëm ca lamb ba di bàqu jóge ca lamb ba di moko gën kon bok bay Sewru gàcce nga ndax fi tay ji ñax wër nañ ma deug la waaye bu gula fi guddi fekkoon santiratuma lëndëm ndax làmp yi boo ko taalee day leer fu nekk tey jii bu ma ne woon tey jii bitig bi mu ngi fii soriwul distance bi damay génn dem def li may def ñëwaat te du ma ut ku ma gunge par rapport fee ba ma fa dëkkoon dëgg la làmp yi yi wër nañ ma waaye ci lëndëm laa dëkk bu may génn damay ni tors mbaa ma ànd ak sama doom mu gunge ma kon boo ko am na différence bu rëy te may ñaan yàlla ñi tax ba différence bi am yal na leen yàlla jàppale yàlla yàlla kattalal seen doole wéral seen cër guddal seen fan li ñu mën yalla na leen ko yàlla mën loo teg làkk leen fu maanaam daal ñaan naa ba lii lii ne sama xol daal man maa ko xam ne yal na ko yàlla mottali di nek sama xol man mako ko xam yalla nako ko motali ki tax li am nak tay bu ko nexon bon volonté yëkëti seen ñak tek ko ci loxom mu def ko fi ko neex ta bu boba dañ nan ax ah, lu way def baxna lu way def baxna waye defut lolu ki nga xamanteni moy am di ci def loko ko jox dako ci def koke modi di ki nga xamanteni mom modi moo di Mansour ci atum 1983 soso ci ki nga xamanteni moy Fatou job ñing ak Maysa Bigué taxaw taxaway bu rafet ki nga xamanteni moy mama Mariama Badji li nga def bu sa waajur yo doon dund ñom nga koy ñëk defal bàyyi sawru defal ko mama Mariama Badji mel na ni defal nako fa jom ñing ma nek aljana ak may sa bigeña kan moy yëkëti kaddu tay ki wara wax mo wara wax tay ta bu waxe ken dootul wax kokoy kan kokoy sawru rabbil alamin may delu santat yalla sama borom bu baakha baax pap kaddu yi nga xamne ne fas nañ ko yene yéene tay fi ci ties ci biir këru suñu yaay Mariama Badji ak borom këram waye ci biir néegam tek ci damay wax ne tay japp na ne man rek ma wara sant sunu borom loolu la japp tay sowru rek mo wara sant boromam tay tay man mi ma len wara ñaanal ngir liggey bu mag bu tol ku ñu ko yëkkati teg ko ci sa ay loxo nga nekk ci di ko doxal ba yàlla def lépp tey sotti buñ ci yegsee ci bis bu mel ni rek jënn jëmm rek a war a sant muy sama jëmm ji nga xamante ni yëkkati woon nga liggéey bu màgg bi teg ko ci sama loxo ba pare ñaanal ma ne ma yàlla na nang ci am ndam kon su ñu demee ba lépp sotti ñu yegsi ci cëppaandaw li tey kenn warul sant man maa war a sant baay paap dama am ay yeg yeg yu bare bare yu wacc sama jëmm ji fii ma tew ci diwan suma yaay Mariama Baaji dama am ñett yu ma japon ci ki nga xamne ne di ci dembu sunu yaay Mariama Baaji wax ko léegi fay ñëk dem ci kërëm ay aide sociale mo ñu taxoon jog di joxe ay xaru tabaski ndimbal nga don ko def àndoon ceeg wa AATGW social te jëm yalla rek tax jàpp naa ni kaddu gi ma njëkk a frappé mooy li mu waxal boppam keroog bañ ko joxee xar ne toog naa 14 ans yoo xam ne rayu ma xar bokk na ci li ma gën a marqué maa ngi doon laaj sama bopp ndax est-ce que Sénégal lañ nekk réew moo xam ne nee nañ 90 pour cent xaw ma 98 pour cent ci ay musulmans jaamu yàlla mën a dëkk ci ruqam toog ci ngoram toog lu toll ni fukki at ak ñeent xaru tabaski sax reyu ko. teg ci dëkk ci bâtiment abandonné comme ni mu ko waxee léegi nii. beneen bi ma ci marqué mooy bis bi nga xamante ni yéeg nañ ci kaw mu ñuy won bu tawee fan lay nekk ak njabootam keroog suñu yaay Mariama Baaji wax na fa beneen baat boo xam ne bokk na ci li ma gën a téye ci sama xol mooy mu ne moom ku ko yóbbu woon tey def ko scanner boppam bi est-ce que dinañ jàpp ni sax nit la ndax dafa xalaat ba ndurootul nit ndox mi ñëwee ci suuf fii ngeen di yéeg fanaan. waaw ah, fii la ñuy yéeg. ñu gis fii amul courant amul làmp amul dara ngelaw li amul sax bunt. waa noonu la ñuy kolo kolo bunt bi sax ñun ñoo ko fi daaj def ko fi toilette yi sama sama doom bu góor bi nga xam ne plombier lay liggéey moom laa jàpp jàpp wax ci ma ñaan borom kër gi 16 moo defar toilette yi fii daal loo ko natt méttiyaay bi metti na trop yaa ngi dégg na trop trop. kenn mënta wax lepp waye nag sante yalla gannaaw yalla mu ngi may wër rek sante yalla bu baax waye nak sonu nañ torop ku ñu jappalé nak ñu jël. son nañ ku ñu jappalé ñu jël way bi gor julitu yalla bu nekk ak soxnam ak juroom ñeenti bant ñoo dekk fi li bu la ni da nga ci fanan da nga nan mënul nekk ni ñi bari ñi am doole nanu jàppale ni ñi néew doole nanu jàppale ñi néew doole nit ñaa ngi koy dund nga gis environnement bi ni mel bu la waxee ñi a ngi fanaan da naan déedéet tey muy lu metti loo xam ne nit ñaa ngi koy dund lan nga bëgg ñu dimbali la ndax sonn nga fa coono yem sonn naa ba fa coono yem waaye bu ñu ma dimbale woon dëkkuwaay daal man ma jël yaa ngi jaamu yàlla coono yi nag bari na yaa koy dund ça fait des années nee nga ma xaw ma baat neexu dund du télé du ndox du courant du dara loo xam ne yaa ngi koy dund doo yëg dara ci réew mi timis nga tëdd ak li lay war ci insécurité bi mais yàlla mi la sàkk moo lay kàttanal sàmmal la boppam ba nga mucc am na yaakaar ne di nga génn situation yi bul tuur xeebal parce que soo jooyee rek day metti da nga yàq sunu tournaate yàlla mooy dogal te yàlla kum na tafay du la liggéey loo yàlla dina ko def ndox te di nga génn situation yi metti na waaye lu metti doomu aadama lay dal rawatina te yàlla kum bëgg lay tek nattu yaa ngi ànd ak sa borom kër ngir jëmme yàlla di ko muñal yàlla dina la ko fay bul jooy lan moo tax nga tur xéewal lan nga lan lan lan lan la lan la. damaa xam ne li may moo metti rek na chaque jour damay xalaat xalaat ba sama bopp bi sax duma xam ne may niru kañ lay génn situation yi. tey jii bu doon vidéo bu ñuy vidéo ci bopp nit xalaatuma dara samay doom kañ la nekk ay nit ndax tey jii bu ñu génnee ci bi dañu mel nay rabu àll parce que xamuñu vie bi xamuñu lan xamuñu dara. di xalaat situation bi nag kañ la ciy génn mu teg ci ne samay doom buñ génnee dañuy mel ni comme rabu àll. ndax xamuñu sax beneen vie bi ndax fi ñu tàmm dëkk ci bâtiment abandonné xamuñu tele xamuñu rajo xamuñu courant xamuñu dara. mooy ñaareel bi ma gën a marqué ci ki nga xam ne moo di suñu yaay Mariama Baaj ak borom këram bi nga xam ne moo ma ci gën a marqué mooy moom suñu yaay Mariama Baaj ñàkk taxu ko ñànki dafa nekk gor billaahi su ma nee dafa nekk gor sañ naa ko répété dafa nekk gor ba pare doylu nangu lool borom këram muy exemple di jigéen joo xam ne tey àdduna yëpp royuwaay lañ ko def tal bi buñ koy teg loxo ak léegi mosuñoo gis ci moom ak soppiku na mu meloon rek ba tey noonu la mel wax dëgg yàlla ñu fekkoon ci situation yi doy waar bokkoon na ci li gën a tax ma am yéene mu am kërug boppam mooy ku nangul sa borom kër faw yàlla nangul la fi mu dëkkoon li muy metti metti ak li muy tartar ak teen bi mu doon rootee moom ci boppam daf doon wax ne jigéenkat boo amee borom kër bu la yóbboo ba ci dégg ba ni la dëkkal fi da nga faa war a dëkk muy message bu for bu mu lancé woon. sa ndigalul borom kër googu nga toppoon ni su la ne woon dëkkal ci dégg ba sax nga dé nga dëkk fa ndax jaamu yàlla tey yàlla dëkkaloowu la ci dégg ba waaye indil na la sa makkaanu bopp boo xam ne yaa Mariama jàpp naa ne tey loo am da nga koo mérito yaa ko muñal sa borom kër yaa ko muñal sa njaboot ñu àndoon ci nag wax dëgg yàlla ak defkatu lu baax te jëm yàlla rek tax. sant laay tàmbalee ci ki nga xam ne moo di Baye Pape Niang mi yëkkati liggéey bu toll nii tegoon ko ci sama ay loxo waaye jiital ma ci nag ba pare ñaanal ma wax dëgg yàlla moo tax musuma ci tiit musuma cee ragal keroog bi nga xamante ni yàlla dogal nañu lancé vidéo bi jàpp naa ne toogoon naa ci kanamam ne ko ñaanal ma bis bu ñuy tàqalikoo man ak yow ma yëkkati ay caabi kër teg ko ci sa loxo Ya naa tey yegg si nañ ci lolu ma di ci sante yalla bax lolu motax mané tay ma man ma wara sante waye benen bi nga xamanteni japp na ko ci sun ya Mariama ba tax ma bëggoon kër gi gaaw paré pare bis bi nga xamanteni jëlin nañ ko ci bâtiment abandonné boobu ma utaloon ko appartement bo xamné mom rek mo fa nekkon ak njabotam guddi gim fa njëkk a fanaan xey and man ak mom jëm ci Thiès ñuy daw ba yag mu melni ko absenté mom ya Mariama baaje nanguma wax dara maa ko laaj maire mu ne ma ne ko lan la mu ne ma dara ma ne ko ankay damaa gis ne ba ma déparé Dakar ba léegi da mel ni kuy xalaat mu ne ma wallaahi sama xel moo dem ci démb ci guddi bi ma yeewa sax sama doom yi doon nañ ma ya laaj yaay lan la man leen dara ma ne ko lan kon lan la xanaa man doo ma nëbb mu ne ma Mansour ma ne ko mu ne ma démb bi ma xëccee buntu tëj lamb mat laa daj ko ventilo tiim ma nelaw ba ben heure bi dama ni bëreet jug tok di lajar sama bop ndax est-ce que man Mariama Badji ma dekk tay ci keur go xamne amul ndox ma dekk ci keur go xamne courant mi ngi ma tim lampa ngi fi tak ventilo ngi ma tim ma teud ci mat laa delloo sama bunt. maalum mbokk senegal ma ngi nuyu ñep ku nek sa tour ak sa sante ma ngi tuddu Grand Père di dom Mariama Badji ak Amadou Maria Badiane ah fo mom li ma mën a wax moom bañ fa dalee dëkk ba tey moom coono bu métti lañ fa daan dund surtout wàllu dund tamit mu yenn saa di dinañ toog ay semaine ay semaine laal ay yées lekk du dugg suñ gémmi dañoo dem ba tàmmu ko sax buñ génnee ci biir sax buñ gisee koy lekk sax duñ la sax ñee xaw ma samay ragg de mais man moom dama dem ba tàmm ko quoi kuy yore lekk sax duma la ñee sax maa ngi liggéey nag lu ma am dama ko ñëw bokk ak sama waa kër muy cent muy ñaar dërëm dama koy dooloo yàlla muñ man plomberie laay def Kër may soke lool. déranger ma trop te du ma am xaal moo ko mën a jox duma am du ma jug ma ne maa ngi am am naa fi moo ko taxalee wala nii rien que bañ samay moroom xam lu may dund sama kër moo tax dama koy muñ toog santee ko yàlla daal dooli sama yaay muñ ne ko nañ sant yàlla yàgg-yàgg day baax day ñëw si kàttanu suñu borom bu may njëkkee bégte rek laa si yég ak jur mooy ñëw guddi laa dugg si foofu noonu bu mu leen nee woo na leen ma ne ah ba mu ne da leen ba mu jëlee ma dafa nee du leen woo sax ma ne ko ah jéem a tardé sans rek nga woolee rek ba ma demee guddi laa dugg si kër gi moo ñëwee ma gis xar bi foofu mais nag bàyyi ma si xel mu ne ma ni xanaa gisoo xar bi ma ne ko ban xar mu ne ma xar bàyyi ne ma ne kan moo jënd xar bi. mu ne ñooñ laawoo ñoo indi xar bi jur boo laa mos a santi bànneex bu ma gën a neex sama àdduna. tey guddi yi nga xamante ni dund ngeen ko foofu ci kër gi ban bis mooy bis bi ko dund lu metti loo xamante ni ba àdduna bi tukki dootoo ko fàtte ci kaw suuf bis boobu ban bis ak lan la woon. jur bu ndox bi di dugg si foofu noonu amuñu fenn fuñ dem ñu yéeg si kaw bokk benn néeg man sam pap ak samay rak samay frère yëpp ñu bokk benn néeg. di ko dund lu metti sax muy weeru koor fa la ñuy fekk korite fa la ñuy fekk tabasi fa la ñuy fekk lu yàgg dal ko dund lu metti duma génn si mbedd bi naa am bi laa am wala lii nii kenn mësuma xamal na wax dëgg moo neex yàlla ba mbokk duñu seet si kenn duñu seet si lu mënti xew sam papa du ko yëg ni lay tooyee dégg ko si mbedd parce que lan amoon billaahi ak waxtu moo toog fii nii mais sant yàlla daal. tey nan la la def ngeen dëkk ci seen këru bopp xam ne lii yàlla moo leen ko indi kontaan ak mbégte rek di xam ni maire bi da koo mérito rek maire bi war na am lu ëpp lii billaahi maire bi day day fas biiram sax pour ñun kese def na lu ne pour dundal ñu kese dama koy ñaan yàlla mooy ko gudd far rek mu mën a fekkee suñu njëriñ ñu mën ko fay lu mu ñu defal. lu bari sax. loolu man du ma ko nëbb sax damay toog di ko devant samay rakk sax moo nga ni su ma demee ba am sama métier bi laa fas yéene teg jëndal la si kër yóbbu la màgg jëndal la oto ngay dawal booy dem marché nga dugg si loolu bu taxee sax dama koy waxaat chaque jour ma wax ko ko yàlla suñ yàlla suñu borom defal ma si kàttan suñu borom may ko gudd fan ak wér Baye Sourou moom dëgg moo ne yàlla dama koy wax maire bi sax dafa doon nit koo xamante ne nit moom sa xol bu rafetee moom loo bëgg da nga koy am loo sumbure yàlla da siy ànd te xolam daa rafet bu ko neexoon li muy def ni yëpp du ko si fekk ba si yéen ñëpp ñiy ànd nii billaay bu ko neexoon dara du ko si fekk day ne man sama yoon neeku si wala indil nañu dund kese après naas mais dafa taxaw kem la laay kàttanam def lu ne rien pour ñu am kër kon damay dool di ko santaat yàlla may ko gudd fan ba lu mu nam si dundam li si kanam yàlla defal ko ko ndax moo xam li mu bëgg ñun nag nit moom bu doon da ngay dugg si xolo nga xam li si nekk wala loo xam da koy dem jëli ko fële ne dañ koy dem jëli ñëw jox ko ko ndax da koo mérito yelloo na ko billaahi ndax borom bu rafet la ba sama rakk yi sax ni muy doxalee ñoom sax dama si kontaan quoi ndax aw ma fayam quoi su ma ko amoon dama koy fay mais amuñu fay dañu bàyyi yàlla mi mu am fayam mu fay ko. mu ne loolu la doon laaj boppam mu ne moom gëmul woon ni ci guddi gu jëkkam génn na ci kër gi nga xam ne fala daan fanaan muy bâtiment abandonné ma loolu bokk na ci li nga xam ne moom a marqué woon borom këram bii nekk gor moom itamit comme ni ko yaa Mariama Baaji waxee moom mu wax ne guddi googu ma fa fanaanee ba bët set wallahi bi mu xëyee dafa jug julli ñaari rakk sangu ba set di ñaan ndax gëm na ni yàlla foo ko xaar rek te muy dëgg mu fekk la fa moom paa bi waxoon ma ci bis boobu genn kàddu goo xam ne mu ne ay doomam moom daf daan faral di wax seen maître bi leen di jàngal ne ko soo xëyee gisoo xale yi na nga xam ni dañoo reerul ci guddi gi xëy ndékki wuñu may bañ xiif di leen gën a sonal moo tax dama leen fiy téye ba ngoon gi ñu gont saa yu ay doomam xëyee jàngiwuñu rek dafa fekk guddi gi reeruñu ñu xëy aussi yorul lum leen jox pour ñu ndékki la leen ni mujjee téye ci kër gi le temps que seen yaay dem dawi buñ añee moom door a mën a gont ñii métit buñ dund ak tartar bi te dawuñu yuuxu jëm ci kenn wallahi azim bari na ñum doon doon nit a ngi fi xaru am naqar boo xam ne yaa Mariama dund na naqar bu ko gën a pire téeméeri junniyoon te keroog la gën a sàmm dignité moo tax yow mi nga xam ne sa xel dafa dem ci xaru bàyyil xel suñu yaa Mariama Baaji diiru ñaar fukki at ak benn yi lim ci dund ci ay métit ak i tartar te kenn musu koo gis ci benn tele kenn musu koo gis ci benn rajo ñun ñii nga xam ne ñun la ko yàlla booleen ngir ñu taxaw ko ñun ñoo dem fekki ko te dund na naqar fuk naqar yem mook borom këram ak njabootam baay pap ñu jëlee ko ci këram googu wax dëgg yàlla luyeel ko appartement jàmm yàlla yi dañu jàppale weer bu jot ñu fayal ko quatre-vingt mille francs yaakaar naa diir ba mu fa def ñetti weer la xaw ma ñeenti weer borom kër gi musu koo woone ko sama xaalis ama ngeen arrière sag la cinq xaalisam dem na ndax liggéeyu yàlla àndul ak ameel kenn ak moo tax saa su la cinq jotee rek même bu ko yëgul sax day fekk envoyé naa xaalis bi ci agence bi bu doon sama dépense su kese laa yor sax dama ko ciy def ngir bañ a benn jàmm ak waaye nag moom it mu nekk góor goo xam ne loo ko tegal doy na ko loo ko jox doy na ko courant am sax man maa koy woo di ko laaj ndax sa courant na léeg-léeg courant am jeex wallaahi lazim du lu mu ko jëndee di ma ko nëbb man maay yëkkati sama téléphone woo ko ne ko maire courant bi jamono bi ma ko jëndee ak léegi war naa jeex mu xamal ma ne jeex na démb wala jeex na barki démb ma door ak envoyé courant bi dëgg yàlla liggéey bi nga xam ne songoon nañ ko ba yegg si fii tey daal Baye Pape ci gàttal yàlla defal nañ ci feex ñu sant bu baax a baax. tolloon nañ ci foo xam ni metti woon na teroon na waaye ngëm-ngëm bi amoon rek mooy kuy liggéeyal yàlla tamit dëgg faw yàlla di la nattu ci muy metti ci muy tar yàlla di xool ndax da ngay deltu ginnaaw wala doo deltu ginnaaw Baye Pape kër yaa Mariama bi dund nañ fi coono bànneex yoo xam ne damay wax ne foos bii ngeen gis ci bintu kër gi ñun ñii ñoo ko gas fii nekk kekk bu naqaree gas lan moo tax ñu gas ko mooy liggéey nañ ba toll ci duus ak foos amatuñu xaalis ñu di ñu laaj ci gas bi fanweeri junni keroog la góor yàlla yi taxaw ni ñun ñooy gasal suñu bopp foos bi ñu gas ko ci diiru ñaari fan man ak sëñ Fallou ak sàmba Camara ak ki nga xamante ni moo di Tafa mbay di chauffeur bi ñu fi àndaloon ñu songu foos bi gont ci ñibbi dakaar xëyaat taalaat oto ñëwaat Thiès bis boobu lañ ko yeggali keroog ñu ngi fi génn vingt une heure moyen waaye dañ ne woon tey foos bi yegg wala ñu faatu ndax liggéeyu yàlla bi jaral nañu ko mu nekk ay coono bànneex yoo xam ne dund nañ ko fii kër gi fanaan nañ fi fanaanati fi Amet Sugu mi fanaan na fi keroog biñ tollee ci xadd lu ñu xaddee jafe lool metti lool yaa Mariama Baaji woo ma ne ma sóoru ma ne kaa ah, ne ma kër ga su paree donte ni benn néeg la defal ma fa rek même bu dee contre plaqué la ci kaw ma dem dëkk fa yaakaar naa loolu waxoon naa ko ci vidéo bii loolu moo tax keroog wallahi azim ma yëkkati sama oto ba ma dese woon jaay ko ngir ñu jënd li nga xamante ni ñu ngir ñu xaddal ko këram ndax dafa nekk gor keroog bañ jëndee matériel yi mu ñëw fanaan si fii wóoluwuñu ñun bàyyi ko fi ñu jël ko dañoo mujjee dawal oto ci man ak Fallou ak ki nga xam ne moo Sugu ak Samba Camara nyu fanaan fi fii fekk fi sedd bu metti ñu affronté sedd bi muy samedi ci guddi ba bët sedd di dimanche ñu yendu fi jàppale suñu tons as mi ko doon xadd ñu ko ba mu pare ñu door a ñibbi Dakar peinture bi ngay gis keroog biñ koy peinture si ñun ñoo jugee Dakar ànd ak grand Abdou Ndiaye mu jàpp ci bu baax baax waaye boo xooloon ci vidéo woy sax di nga xam ne peinture bi ñun ñoo ko peintureel suñu bopp ànd ca ki nga xam ne moo di Abdou Ndiaye di grand peinture bu mag boobu nga xam ne lépp luñ liggéey mu jàpp ci dëñëm yàlla rek tax loolu lépp nag baay baab li tax ñu am cawarte ci def ko mooy nampatal nañ ñu ci liggéey bi nii dara yomb ci lépp a metti ndax bu ñu lay woo ci liggéey yàlla bi liñ la ci njëkk a xamal rek mooy xiif la àndal ak mat ak coono ak jël sa alal sa doole di ci def te pay kenn du la fay fii fu dul yow mal xiyaamatul akbar wax dëgg yàlla kon nag tey moom bis la boo xam ne sant rek ñi ngi ciy sant dëgg mooy bonne volonté yi nga xam ne ñooy jaayante seen alal di ko teg suñu loxo ngir ñu dimbalee ko suñu yaay Mariama Baaji ba liggéey bi yegg si fii mënuñoo lim ndax ñi ëpp ci ñiy defal yàlla bugguñu ko tudd seen tur te liggéey bi bugguñu cee tooñ kenn waaye daal képp koo xam ne mës ngaa yëkkati sa ñaq muy dërëm mbaa moo xam nu mu toll teg ko ci suñu loxo am naa yaakaar ci ni boo gisee liggéey bi danga nga xam ne sa yéene ja nga amoon ci ñu génn soxna a Baaji situation yi yàlla def na ko waaye ku ci tàbbal sa dërëm bis ni ki tey maa ngi wax ni wallaahi azim soo tëddee na nga nelaw baay pap waaw baay pap li ma nar rek mooy yëkkati kayitu kër gi ak caabi kër gi jébbal ko ki nga xamne modi sunu yaay Mariama Baaji wax deug yalla loolu la fasiyene def ni ndaysan tay nak Baye pap ma ngi wax ni barke Cheikh Ahmadul Khadim tay neku nek guddi gu jeuk go xamne ne diir bi ñu tegee yaay Mariama ak ak legi tay moy nek guddi gu jeuk go xamne suma yegge sama keur suma tede dina nelaw ndax tay lama yalla defal lima ko don ñaan moy bis buñuy takaliko kali ma yëkkati ciabi keur ak keuytu keur tek ko ci loxom tay yalla defal nañu lolou moo tax yegg si nañ ci moo tax may wax ne man maa war a sant te maa ngi ñaan bu ma kenn sant ci lii te jëmmi yàlla rek tax li tax man maa war a sant mooy ñun ñoo fekk yaa Mariama Baaji ci naqar ak jafe-jafe ak coono ñu takku ni dañuy jaayante yàlla ba génne ko ci yàlla defal ñu ko kon kenn waruñoo sant ñun tey ndax fii nga féete ñun mënoon nañ fee féete te yàlla du ñu nattoo ñu ñu taxawoo comme niñ la taxawoo yaa Mariama Yaksi nañ tay ci bis bi nga xamne ne ngi ko don ñaan yalla sama borom tay ji lama ko yalla defal may wax alhamdulilahi rabbil alamin li nga xamne mom la yor moy ciabi kër gi ci sa loxo la koy tek yëkkati li nga xamne modi keuyitu di kër gi muy maryama baaji ñu gën ko xam ci janké badzi kër gaangi ni ya ko mom ciabi jaangi ni ya ko mom wax deug yalla ma ngi yalla sama borom bu baax mënoon nañoo dugg ci liggéey bii yàlla nattuñu ñu tàmbali ko te du yegg liggéeyal yàlla yombul ndax yàlla bu la santee liggéey dalay boole iblis mu lay taayelloo waaye yàlla daf ñuy may force saa su nekk ñu demee sax ba xaalis jeex dafay mel ni keroog la ñuy ëpp courage ngir gëm ni yàlla la ñuy liggéeyal liggéey bi soxla wuñu ci ku ñu sant yaay defaluñ la dara ndax baat biñ gëm rek mooy kenn defalul kenn dara kenn deful kenn dara lu waaye def boppam te baay paam nee na àdduna ku tabaxal doomu aadama bu ko yittewoo kër ci àdduna yàlla suñu borom dina la tabaxal ay chato kon yàlla bu ñu fa wéet damay wax ne château su fekkente ne yàlla nam na ko tabaxal sowru yàlla xañ ma ko jébbal ko Pape moo ma liggéey loo lii duma ci dara Pape Niang moo ma yéen a àjjana moo namm tey sowru texe billahi lazi waaye lii nag taxul benn yoon ñu yàccaaral walla ñu jàpp ni defal nañ yàlla lu mu gërëm ba tax dootuñu jaamu yàlla déedéet tey la ñuy gën a jaamu yàlla bisu tey la ñuy gën a dàggi suñu laxasaay ndax kàddu Baye Ass ga mu yëkkati woon ci Louga ay junni nit a ngi ñuy xaar yi ñu war a tabaxal kër ñoo ngi ñaan yàlla képp ku am yaakaar ci suñu jëmm yi bu la yàlla boolee ak ñun yàlla nañu ci yàlla may ndam ba ñu defal la nii ñu defal suñu yaa Mariama Baaji yaay booy sa këyitu kër a ngi noonu bala maa ñëw ci yow ki may njëkk a laaj mooy suñu wayjur bii ndax moom keroog bi ñuy dem di def mutation kër gi dañu koo laaj ne ko bu ñu demee Thiès kër gi ci sa tuur lañ koy def wala kër Maria turu mu ni jël na lépp jébbal ko Mariama nee na nañ ko def tur bi nañ ko def ci euh, suñu yaay Mariama Badji moom moo ko sàkku loolu moo tax ñu jël këyitu kër gi jébbal ko ki nga xam ne moo di suñu yaay ba pare jël turam def ko ci papa tey bëggoon naa xam lan moo tax keroog bi nga xamante ni ñoo ngi laaj tur bi ñu def ko ci kan nga wax ñu ni jël naa lépp Jebol ko ki nga xamne modi di soxna mariam ngor gogo lan la wala lan la suñu yaay Mariama ji donte ne xam ci lu bari ba tax tay ñun ñi di ay ndaw rek kayitu keur la wër buñ ñu neewon man mii kuma neewon ne keur ngi nii ñu def ci sa tour wala ñu def ci sa soxna dama naan nañ ko def ci sama tour yaw nga ne nañ jël lepp jébbal ko sa soxna ndax mën nga ñoo wax lan mo tax nga waxon ñu loolu bis boobu. alhamdulilah. mérité. mesurer na ko bu baax ndax ku nekk ci biir ndox dix ans wala quinze ans musul xaddi benn yoon ku ne wax na ko ku ne wax na ma ne ko muñal nañ jógee fii muñ boobu nag ba mu muñ te nangul ma ko moo tax ba muñee laaj ma ko ma ne ko lañ foofu lépp jox la ko man solu ma ci dara yaa jur xale yi doom yi man mun naa suba suba suba mun naa dee fi wàcc na fi ak xale yaa fi des man solu ma ci len ma ne ko man Mariama ma ne ko wax naa la du benn yoon du man tey su ma yore ay milliards man solu ma yére bu bees solu ma tubéy bu bees solu ma bu bees te moo gis na ko lu ma amale ma fa mu koy lii nag ma ne ko seetal lu la doo nga def ko kon nag kayiti kër yi bu ñu demee ba moom ci ba ñu ne kër yi tuur kàll la damay fab lépp jox ko waaw ndax lu ma desee bëriwul moo ma paree xale man mun naa dee rek ma dee fii léegi moom mooy des a xale yi waaw kon nag moom moo kër gi man sama bopp bu ma jëlee sama xaalis te ba kër gi si boppam sax dama koy wàccal moom waaw kon mérité na ko 15 ans. yaa ci biir ndox say mbokk wax sama mbokk wax nga ne ker rek koo xam moom yëfam la kon nag man soxla ma ci leen tey tey tey tey dama ne ko su ma tabaxee kër sama bos bos ma tabax kër ma jotee ak yow bu génne dana am man maay gàddu samay baax génne dem la fa du yaay génne waaw comme ma ne ah, na ko doog a sant samay waajur di leen sant man de Pape Niang yow ak say équipe boo gisee te may sonn di uti yàlla yéen laa gis surtout yow mi Pape Niang Pape Niang bu ma doonoon tey géwél ma jël tama dugg biir Thiès di la tàgg yaa ngi liggéeyal yàlla yal na la yàlla fay idée bi nga am depuis ci malade yi ba ma dugg ci association bi ba ñëw ci social lépp Pape Niang yow la di santaale équipe bi yëpp fu ñu sant fu ñu la santeere santaale nañu équipe bi Pape Niang jërëjëf Pape Niang jërëjëf Pape Niang jërëjëf ba ñetti yoon man suma wax du bare ba pare may sant sama association fii sabilillahi bi ma yore di ci taba ay daara di ci tabax ay juma ba dajeeg Mariama ñooñu na boo leen boo gisee ma leen di sant suma association bi jëm kanam ñoom ñoo ci dugal seen loxo. aw bi ñu santaate yàlla ci lim ñu may ñu yëkkati caabi kër ak këyitu kër jébbal ko suñu yaa Mariama Baaji naam sanc na naam dëkk na waaye tey dëkkuwaay bi am na lu fi manqué ndax néegu suñu yaa Mariama am na yu manqué néegu xale am na yu manqué waaye jafe-jafe bi dëgg li ñu bëgg dëgg-dëgg ku ñu ci jàppale ci suñu yaa Mariama mooy dund te yàlla rek tax nañ ñu jàppale ci suñu yaa Mariama baaji mu am dund ku am ceeb ku am diwliñ ku am suukar lépp buñ sañoon néeg bi dañ koy sarde ba mu fees ci dund ngir noppal ko ci li des ci dundam ci dem di wuti dund donte ni mënta ñàkk te yaa Mariama lan ngay wax bonne volonté yi ci lan nga bëgg nag ñu jàppale la ko ci ginnaaw bi nga xamante ni jàppale nañ la ba nga sanc moo gënoon a metti jàppale la ba nga dëkk moo gënoon a metti tey lan nga leen di woo ngir ñu jàppale la ngir loo mën a jàpp loo mën a liggéey wala loo bëgg rek ngir ñu dimbali la ci te jëm yàlla tax waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp di santaat kàddu gi moom du sori te du gudd gudd lima bëgg rek moy sama mebet bëgg na def commerce kuma jappalé dal ma mëna am place wu mag dal di commerce ñi ñëpp mëna jappalé sama bop ndax nit mom, buñ la dé xëppal ndox da danga naw nak jappalé nañ ma ba fi li ci des nak dama bëgg yalla jappalé ma man tamit ma agalek sama sago te dama bëgg ngeen japp ci yentam tam bonne volonté ngeen jappalé ma ba ëlëk ci biir ma am place bu mag a mag di daw di dem di ñëw bu ko defee bu boobaa nañ ma dimbale woon ëllëg ci biir man tam ma wëlbatiku dimbali keneen koo xam ne man tamit tane naa ko waaw daf may neex trop waaye bëgguma tamit ñu di ma dimbale rek ba fu ma toll foo xam ne ñu di ma dimbale rek man tamit ñaan naa yàlla ëllëg ci biir tey jii bu ma demee ba seetaan seen vidéo ma ne ah man tamit xaaral man it gannaaw ma ne dañ maa dimbale woon man it naa dimbale keneen koo xam ne tamit néew doole la. loolu du bale ma ko defee naa sama saal bi nag mën ngeen ma koo lijjantee sama saal bi moom pauvre na de du dara am moquette fauteuil amul dara dara amu fa lu saal di mel moom amu fa amul dara dara dara nii matelas bu mag lañ fa teg fu mu toll ni gani yi ba ñu ñëwee basan laa lal wax dëgg yàlla jàpp leen ci nag jàpp leen ci li laay war a suuri rek na ngeen ci jàppee woon ne xam naa ne di ngeen ci jàpp yàlla buur bu baax la. ayca bonne volonté yi dégg nañ la saal bi. ak place ndeysaan suñu yaa Mariama nee na ngeen jàppale ko mu am place ngir tey xoolal moom bi mu sàncee këram léegi li nekk initiative am mooy am ci lu mu jàpp bay dimbalee ginnaaw neen dañ koo dimbali kon nag jàppale leen ñu ci suñu yaa Baaji ba ñu utal ko fii ci Thiès place bu baax ba ñu filmé place bi won leen ni fii mooy bërëb bi nga xam ne suñu yaa Mariama Baaji fii lañ ko utal fii lay nekk léegi di daan dooleem te jëm yàlla rek tax ngir wax na ni bis bu ko yàlla dimbalee ba mu commencé am ci lu mu jàpp heure bu gisee ku soxla ndimbal moom dina jóg dimbali ko te jëm yàlla rek tax waaye nag ñu leen di woo ci salle bi ku am fauteuil te may suñu yaay am moquette lépp luy dem ci saal rek ñu ngi leen ci xaar ngir ñu gën a defaral suñu yaay ba léppam gën a nekk en l'aise ngir jëm yàlla te yàlla rek tax jaangeen ngeen